ab jotaay ay jàmbaar yoo xamante ni ay ndaw ay jàmbaar yu am passeef ci liggéey Sëñ Tuubaa yàgg koo liggéeyal nag ci lu bare bare bare bare nag waaye ñoom ci seen liggéey ci lu mu jëm mooy taxaw gani Seexul Xadim yi ci gaaw ci màggal li nga xamante ni moo jëm ci xéwli màggal ñu taxaw ko ñoom nag ñi ab boo xamante ni ñu ngi tudd daayira Bëgg Borom Touba di daayira boo xamante ni tur wi boo ko déggee rek wuyoo nañ ko ndax niñ ko woyee bëgg googu dañ koo jëfee waaye du ay wax bëggug jëf la ci ay euh, jëfin yu am solo yoo xamante ni ku ko dégg rek danga xam ne ñoom ñii seen wax seen seen seen seen turu yi turuñ jëfe la moo tax seen daayira bi cosaan la ndax ki nga xamante ne moo ko daan taxawee di seen waajur di seen maam euh, ñu koy woowee bëgg borom Tuuba turam woowul ko ñëpp xamee te bëgg googu ma ko bëggoon nag du ko wane fépp nag ba ñëpp xam ko moo tax yàlla defal turu mu nekk turu am barke turu yaatu ndax it wax dëgg yàlla liggéey bi mu daan liggéeyal Seexul Xadiim ci joxe ay ñam ci fii ci barab bi di daare kaamil yàgg na ko taxawee lool ba mu koy taxawee ñun ñi ay ndaw lañu woon tuut ay tuut tànk lañu woon te lam daan def jëlee ko fu sore sore ba Bambey indi ko ba di ko séddalee ñi nga xamante ni mooy taalibe Seexul Xadiim yi loolu ba mu koy def amoon ci mbégte lool waaye daan ci gàllankoor ay coono yu méttee métti li mu nekk mag mag lépp lu mbir mi métti métti métti day ànd ak njaboot gi ñëw séddale xéewal yi delluwaat nga xamante ne loolu moo nekkoon ay ay tànkam tey jii nag yàlla dogal mu nekk ci àjjana ak njabootam jug taxawu ko loolu di ko ñaanal yàlla suñu borom dolli ak leeram ndax xam nañ ne ak leeram dana doolee ko ndax loolu mu defal Sëriñ Tuubaa ak turam woowu dana ko fekk te biir bàmmeelam te dana gën a yaatal tey nag ba ba léegi nii ba fa jugee ba léegi nda njaboot gi jóg ànd ak mu ànd ak ànd ñun ñëpp takkatoo taxawu liggéey boobu mu fi bàyyi woon gën koo jëmmal ba léegi liggéey bi tey maanaam kawee lool njot tey bu njëkkoon ay ab boole woon waaye tey ay mana la ay man ay mana ñi lay ay nag macha allah ci màggal gi di ko def ci xéwal yi màggal Tuuba ak lu màggal Tuuba màggal gu xew rek dañuy ñëw def loolu nga xamante ne seen waayut moo doon def ah ñi ñëw nii ren nag wax dëgg yàlla cant ngërëm ndax it jëwriñ yi nga xamante ne ñoo jiite liggéey bi ay borom passeef lañ ndax bu ñu amutoon passeef lii agi fii tey du fi mën a egg seen passeef ak seen jom ak seen fulla ak fayda ak bëgg sëñ Tuubaa moo tax liggéey bi agi fii tey su leen neexoon fa mu fa ba mu ko yoree moom ba mu fi génne rek fa mu yem mën na faa yem waaye yéen gis leen loolu li ngeen gis ni ah moo ñu ko bàyyee te li ñuy bàyyee pas-pas la ak passeef ak fulla ak jom te loolu ñun kenn ñu ko ëppale ndax defoon na ko ci ñun waroon nañu yoon wi waroon nañ fa ñuy jaar te loolu ñoom ñii wax dëgg yàlla ku leen gis xam ni màggal gi nëppaluwuñ ci màggal gi soluwuñ ci màggal gi defuñ ci lenn lu taxaw ba waañ ba ba lépp li nga xamante ne yemmu ci liggéey bi ñu togg ko ba mu mel na war a mel ñëw ci daaray kaamil yii di ko fi séddale nga xamante ne ñu ñu doon nekk ci daaray kaamil ñu fi liggéey moo xam ñi nga xam ne dañoo ñëw di ziyaara si moo xam ñi nga xam ne ay yelwaankat lañ ñoom ñëpp la boole ci xéewal gi da nga añ añ bu leer nañ macha allah daal di reere macha allah te loolu lépp seen kàttan la ak seen doole kon lii tax ñu leen koy wan ab soññ la ndax ñii kat jar nañoo jàpp jar nañoo jàppale ku leen gis war ngaa ñëw bokk ñoom te xam ne kat li ñuy def defaluñ ko kenn kuru Serigne Touba te Serigne tubaa màggal gi ba mu koy woote benn benn da ci te léeg-léeg gis gan koo xamante day jógee fu sori wala mu ñëw ba Touba du am fu mu jëm mu réer ñëw far toog ci bu amul lum xewloo mën naa sonn waaye ñoom ñii dañoo ñëw gan googu nag xaw a sonn ci xewal yi ñu taxaw ko mu xewlu fi ba ba macha allah mu delluwaat këram kon loolu ñun ñi nga xamante ñu ngi ci daara ji ci ndigalal kilifa gi di sëñ Moustapha Diattara bi nga xamante ne tey liggéey bi moom moom la yàlla dogal mu ci loxoom bàyyi ñu fi ñun ñii ñu nekk ci taxaw liggéey bi ñun ñi fi nekk ak ñoom nag ñoom waa daayira bëgg borom Tuubaa mi seen taxawaay rafet na waa daada ji ñëpp a ngi sant di gërëm ndax it taxawaay bi rafet na ànd nag yar ànd ak teggin ànd ak organisation ndax mënoon naa bari te te te ñëpp duñ xewlu waaye bari na mat na organisé ngeen ko ñëpp xewlu nañ ci te it macha allah dama war a mel mel na ko tey bu ngeen fi nekkutoon danañ te warank ci liggéey bi kon di ñaan yàlla suñu borom yokk seen kàttan yokk seen man bañ yàgg di ko ànd sax màggal jot ñu ñëw di ànd màggal gi yàlla yokk li ba seen i set salaat ngeen ànd ak ñoom di ñëw di ko ànd ak ñoom ci bàkk Seex kon jox cheikh bi mu jox ci kàddu rek defee incha allah bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim naa bi ñu sant yàlla julli ci bi di sant seriñ Touba bu baax a baax baax a baax im ñu mayee ñu fekk màggalam gii di siyaar ñëpp nag bàyyiwuñ kenn di siyaar mbokki taalibe yi suñu ginnaaw yëpp ku lim ku lim nag da waaye nag ñi ngi siyaar ñëpp bàyyiwuñ kenn di la siyaar yow suñu Ousseynou bu baax a baax a baax ndax mbir boo ko dee def ña fa nekk yaatal la ca kon ñooño jar nañoo sant bu baax baax a baax ndax bërëb bii du bërëb du du du bërëb du n'importe quel bërëb boo xamante ni ku nekk war na fee mën a def lu la neex waaye yéen da ngeen ñu jox ak jàppandi jàppandi boo xamante ni maam fu leen ne amuñ amuñ amuñ amuñu fi sens interdit luñ bëgg rek ngeen ànd ci ak ñun voilà kon nag yéen dañ leen di sant bu baax a baax a baax baax di xamal ne nag ñun. bëgg borom tubaa lépp mooma ndax boo amee kilifa mu teg la ci yoon woo xamante ni liggéeyal sëriñ tubaa rek kese la dara àdduna raxu ko ñun ñëpp ci loolu lañu ñu yar ba ñuy tuut tànk ba léegi man ba may gën a nekk gone laa ànd ak moom fii nekk ci daara ji tey jii daanaka suñ boroom def na tey ba tey nekkatu fi ñu ànd ak mbokki taalibe yëpp ñëw di taxaw liggéey bii kon lépp bëgg borom tubaa la waaw lépp bëgg borom tubaa la kilifa goo xamante ni daf lay teg ci yoon. Mm-hmm. loolu yombut. waaw tey jii bu amutoon lii. mën mm-hmm. na amaana mi màggal gi mën nañoo fekk ci yeneen mbir. mën nañoo fekk ci yeneen mbir waaye kon sant la sant bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. ba nu amee kilifa goo xamante ni bëgg borom Tuubaa. ñëw ci bërëb bii. tàmbalee ko fi. mu xawoon am nu melit ndax dëgg yàlla. mu jaayante ko. ba tey suñu borom tey dellu liggéey bi toll fii. kon sant yàlla. te xam ne liggéeyal borom Tuubaa amul tànk yi ginnaaw tànk kanam rek la li ma sëñ Modou wax léegi rek ne ma bëgg borom Tuubaa tey bu leen gisoon xolam dina sedd lool ndax moom nee na ba muy tàmbali daanaka lu bëri mooy fekk na ko kon ak cant la ak cant bu rëy rëy la wallaahi kon nag ñun nit lii rek ab soññe dong lay doon ci ñun mooy takkaat laxasaay rek xoolaat fu gën a sori waaw la la gën a gën a namm fa sori rek waaw ndax it bu ñu sañoon am na ñeneen ji nga xamante ni comme li nga wax rek penc mi ñëpp ñoo koy jox bernde wallahi azim penc ñoo koy jox bernde waaye nag gën a takkuwaat rek waaw di soo ñaan mbokki taalibe yu baax te ñu xam ne bërëb bi li ma ci wax rek bërëb bi du du du bërëb ah, kon nag bu fi ñëwee ñun ba tey am fi lii ngeen jël ñu taxaw ci kanam écran bi di ñu seedeloo suñu liggéey bii alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla la sant yàlla gu wér a wér a la kon takkaat laxasaay rek moo ñu war takkaat laxasaay gën a pasteefu doxaat ci lu ñu jëm gën a xamaatit li ñu yor ndax yombut ndax bërëb yi ko sama borom dogal ubbil la fi ay bunt ba nga mën fee def liggéey bu mel nii mm. sant yàlla la mm. gën a doxaat nag bu baax a baax a baax a baax a baax tey ñaanal ñëpp nag mm. tey ñaanal ñëpp ñu nu àndal waa Bambey te ñu nekk ca dal ba waa Tëngéej ndax liggéey bi ñëpp a ciy dugal seen addiya ñëpp a ciy dugal seen addiya ndax góor gi dafa nekkoon koo xamante ni genre missionnaire la woon ndax képp ku mu gis ku ne dina fexe naxtaan la ba jël ci la nga yor def ci biir liggéey bi kon kooku missionnaire la missionnaire bu rëy rëy la man gis naa ay nit ñu bëri ñoo xam ne bëgg borom Tuubaa nax na leen mm-hmm. wala waxtaan ak ñoom ci mm-hmm. tekk ak dal mm-hmm. ba jël ci seen àddiyee defal leen ko ci liggéey bi te kooku ak ndimbal rek la la leen bëggal ak ndimbal rek la la leen bëggal wala azim ba fépp ci àdduna Italie Espagne am na ci ñu bëri ñoo xamante ni màggal gu jot dañuy yëkkati seen alal yónnee ko te loolu lépp moom moom moom waaw moo ko waral moo ko moom dëgg fa yàlla doonoon na nit koo xamante ni ko lewet la dina waxtaan ak yow naxtaan la ba jël sa addiya hmm. dugalal la ko ci liggéeyal Sëñ Tuubaa bi kon kooku li ma wax rek lépp mooma lépp mooma ñu ñaanal ko mooy sama borom yokk ay leeram bu baax a baax a baax baax baax a baax dëgg yàlla xol sedd na boo xoolee ni ni waxee sax xam ne suñu xol dafa sedd lool wax dëgg fa yàlla suñu xol dafa sedd nga ko waxee rek hmm. dañ daan ñëw rek def moom fi mu ñu teg fi ñu teg rek ci loolu lañ daan dox hmm. mooy ñëw ci daara ji xam bërëb bi nag mooy mooy lan yar teggin joxe bernde yi amul xaj yi amul seen képp koo xam ne woon na bernde yi ñu jox ko comme ni nga ko waxee ba ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci biti di di lalwaan ak yooyu yëpp dañuy fexe xéewal yi egg ci ñoom ngir ne xéewal li si suñ Tuubaa wax rek bernde rek la wax amul xaj yi amul seen ñun nag foofu lañ teg suñu tànk te ki ñu xëppal suñuy bët ban tegu foofu jëmm bëgg borom Tuubaa rek la waaw man damay faral di wax ne man dama koy sant te wallaahi bi mu génnee àdduna laay doog a wutub sëriñ ndax lépp lu sëriñ di def ci doomu aadama rek mm. mate nañu ko muy ci yar bi mm. ci teggin gi mm. ci liggéeyal sëñ Tuubaa gi ci lépp njaboot gi ñu ngi nii kenn mu bàyyam wax lu dul noonu amut lenn lu mu lay meree lu dul liggéeyam sañ Tuubaa bi mu jot gisu la wala mu jot di laaj àddee wala loolu te te te joxe woo ko ca bu weesoo nag amut lenn loo ko mën a def ci àdduna ba mu yëngal ko wala mu wala moom lenn lu mu cay kiyee kon kooku boo ko amee tey waaw lu rëy a la man moom man li may wax rek chaque jour te it moo ne ci mbooleem ñëpp ñu suñu ginnaaw ñun ñëpp di taalibe yi mm-hmm. danoo yar mm-hmm. ci liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax ba ñun ñii kenn mënul def lu liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. ku ko def leneen it génn nga ca lam lam la yar te alhamdulilahi rabbil ba nga xam ne da njaboot gépp ñu ngi ci yoon woowu muy liggéeyal sëñ Tuubaa képp weesuwuñ ko génnuñu ko comme ni nga ko waxee juróom-ñaari màggal yëpp lañuy taxaw waaw ku ne xam ne nag loolu yombul waaw ndax yoon wi ku ne di nga jël sa màggalu sëriñ wala sëñ naa nanga wala daal di taxaw na nga waaye ñun amuñu ko amuñu ko waaw sëñ bi daal waaw yem ci sëñ bi waaw jàmbale ji sëñ bi yem ci sëñ te loolu lépp nag ab liggéeyam kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di ñaanal mbokki taalibe yëpp nag waaw bàyyi wunu kenn mm-hmm. waa Bambey waa Tëngéej waa Espagne waa itali ndax àdduna bépp mm-hmm. ñoo ci dugal seen aw ñax wallaahi àdduna bépp ci dugal seen aw ñax mm-hmm. bu ko defee ñun ñii rek daanaka ñoo mën a teew moo taxit ñu ñëw jàppale ci jàppale jàpp gaa ànd ak gaa yëpp liggéey liggéey bi ñëw indi ko fii waaw Maroc yi tamit du ma leen fàtte wax dëgg fa yàlla ndax ren it taxaw nañ ci taxawaay bu am solo wax dëgg fa yàlla a a baax a baax waaw sant nañ bu baax foofu tamit dama ci ndax maam liggéey suñ tuwaa yaatu gi muy yaatu rek mhm. Maroc googu yàlla suñu borom tey dafa defoon ma dem fa mhm. waaye li naan suñ tuwaa day yaatali mbiram mhm. waaw ma dem fa sooññeeri daanaka màggal gi ñu taxaw ci taxawaay bu am solo waaw taxawaay bu am solo nag wax dëgg fa yàlla waaw waaye loolu mooy firndee na rek liggéey bi dafa war a yaatu waaw dafa war a yaatu waaw te it allah am nañ ci yaqin bu leer ne sëriñ bi dina ko yaatal ci fépp waaw dina ci yaatal ci fépp fépp fépp wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax gërëm nañ leen bu baax ñaanal yéen ngeen yàgg fi lool te ànd ko waxee sànq yow moom da ngay kenn ndax it lii dafa rëy ci ñun rëy na ci ñun rëy goo xamante ni wallahi am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax ay ndaw nekk di liggéey saa su ñu at mun ñëwee rek at moom yow di nga ñu soññ soññ goo xamante ni ak waa daara ji yëpp ba bu ñuy delluwaat Pastef gi ni àndal sax duma ma du ma la ko mën a wax waaw te loolu nag bu la neexaloo lépp bañ la ci fekk waaw waaye nag soññe gi ngi ñuy def nii ak lépp ngi ñu kii bu soobee yàlla dinañ ci gën a bàyyi xel bu baax ñu ko wax mbokk taalibe ñu bàyyi ci xel xam ne ku laxas waayam rek na gën a yokkaat laxasaayam waaw gën a yokkaat laxasaayam bu baax a baax ndax fi ngay def dafa liggéey boo demee ba ñooña ràññee leen liggéey bi ngay def am na solo kon sant yàlla sant yàlla la moo leen fay nekk di liggéey duñ dégg jaajëf duñ dégg dara kon kon ñi ngi wane ne ñi ngi ci yoon wi waaw ñi ngi waaw ngi ci yoon wi bu baax a baax a baax kon sant bu baax gërëm ñëpp waaw ñu ngi sant bu baax baax baax bi delluwaat la kàddu bi jërëjëf macha allah kàddu yi rafet na te na ku dégg ni nga doon génne xam ne xol bi daa sedd lool xam ne am na yéene ju rëy a rëy yoo xamante ni moom li am liñ yéene moom danañ gën a takkuwaat mu gën a jëm kaw te loolu moom li nga wax rek maanaam bëgg borom Tuubaa bi nga xamante ne tey moo leen tàggat teg leen ci yoon yi ba mu egg si fii jàpp leen ne bu leen ci ragal dara bu leen am leen lu ngeen ci jaaxle ndax it maanaam moom la ci gënoon a métti def na ko la ci gënoon a diis def na ko mooy teg leen ci aw yoon ndax war na lañ yoon yi li ci nag yéen la yéen la te loolu yéenañ ci ndax it yoon woowu wax dëgg yàlla daa gën a yokk daa gën a yokk ndax it yi moom comme ni nga ko waxee rek yéen ji mooy dem ba penc mi ñëpp di ci xewul te loolu am nañ yaakaar ci te gis nañ yaakaar ji ndax it benn bool ba ko waraloon tey dina dem ba law penc mi yëpp incha allah rabbi kon daal incha allah ngeen gën a xam ne daal rek moom li nga waxee rek rek du barab boo xam ne ku ne fi jëf du barab boo xam ne ku ne fi dugal alalam wala dooleem wala xam-xamam si ñëpp daal mi ku fi dugal dooleem wala xam-xamam rek wala alalam seen tubaab moo la loolu moom gis nañ ko ba tey ndax it tumburanke woon na fi lool li ngeen def nii. am na jamono yoo xamante ni ñi fi nekk sax dañu am problème bu jafe-jafe xewlu sàkkumtuma ñi nga xamante ne kon nag bu ngeen demee bay yemale ñoom ñëpp kuy gelwaan ak kuy siyaare si ak ku fiy liggéey ñëpp ngeen gàddu seen dund ci màggal gi ñetti fan wala ñetti fan màggal gi yëpp añ ak reer loolu dëgg yàlla yombut te dëgg yàlla ñi nga xam ne yéen taalibe yi di ñuy seetaan ñi nga xamante ne ñoom ngeen gis ay jàmbaar lañ ay soldaar lañ dara ñorul leen nag loolu loolu Sëñ Tuubaa su ay ndaw lañ bu la neexal la ñu amoon nañ ko dugal ci leneen waaye ñoom tëluñ màggal di ñëw ñuy xottee ko solo di wane liñ daal mooy nañ berndeel ba gone ci gane Seexul Xadim yi ci barab bii di Daaray Kaamil barab bi nga xamante ne tey euh, Sëñ Abdu Lahat moo ne woon lépp Sëñ Tuubaa mi ngi fi Sëñ Abdu Lahat moo ne woon kërug Sëñ Tuubaa la ndax kërug alxuraan la kërug xasida la kërug xam-xam la Sëñ Tuubaa Abdu Lahat moo ne woon dencam Sëñ Tuubaa fi nekk ndax dencam bi mooy alxuraan bi si sarmadan هلا من بي مكسيم الأمن والبصر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقدت كورا بعد هند مقلد لبا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 salaatu lazi li xaadak xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar